waaw am nañ ci yaakaar ndaxte boo demee ba am euh, bénédiction euh, maanaam ñaan ci ñi nga xam ne ay kilifa lañu kilifa diine euh, nga dem aussi li nga jot a liggéey mu am solo lool ci dundu population bi nga am aussi ay responsable ñi mel ni Alioune Badara ñi mel ni Mactar ñuy liggéey di nemmeeku nit ñi di waxtaan ak ñoom. xam nga keroog euh, président dafi ñëw di inaugurer Ila Touba Ila Touba nag du waa Touba rek ñoo ko ñoo ci d'accord Ila Touba réew mi yëpp dañ ci d'accord parce que euh, foo jóge ci réew mi mun nga jaar Touba d'abord parce que Touba dëkk bu sell la c'est une ville sainte. ensuite aussi dafa mel ni carrefour euh, te Ila Touba dina tax ba Touba nekk effectivement carrefour du Sénégal booy dem fuuta booy dem Kaolack booy dem Njaareem foo mënta dem boobu booy dem Tamba mun nga jaar tuuba donc dafa mel ni euh, li sëñ Touba doon ñaan am na euh, ñu ci ñu ci am contenté lool ñaan yàlla rek yoon bi nekk. Euh, ci intérêt population yi nekk intérêt Touba. président liggéey na ñëpp mën nañu sedd ni liggéey na euh, li ci mujj mooy inauguration Ila Touba bi ma doon ñëw léegi maa ngi ko doon expliquer une heure vingt sept minutes laa def diggante Dakar ak Touba une heure dix diggante Touba ak fii à peu près dix minutes boo ko méngalee daal dafa mel ni une heure vingt sept minutes maa ngi woon Mbacké. maa maa ngi ma kontaan ci trop euh, ma gis ne aussi liggéey bi ñu am bi ñu def bi ñu commencé def dafa am solo parce que gis naa fi mbootaay bu tab ay leader ay jigéen ay jeunes ay élèves même ñëw nañ ci topp seen ginnaaw pour jàppale président loolu nag sant yàlla la parce que ñoom ay acteurs yu bees lañu maanaam ñi nga xam ne fii la ñu nekkoon non léegi la ñu jóg waaw dañu ñëw yokk ci loolu nag sant yàlla la sant leen di leen gërëm également au nom du président de la république Macky Sall